voilà donc prétexte bi lenn la woon rek amoon occasion ñëw discuter ci yenn question yi nga xam ne dañu préoccupé muy question yi nga xam ne moom moo tax ba jeunes yi suñu buggee entreprendre secteur agricole am ay difficultés ñun ñu njotoon ci ñett yoo xam ne mun nañ ci citer problème mu accès suuf bi xale yi amuñu suuf beneen bi nekk problème mu formation beneen bi nekk aussi problème mu euh, financement donc su yàlla dogalee nag euh, ay foire internationale yi def étude ba gis ay résultat yi nga xam ne ñun njottoon nañ ko d'abord parce que loolu moo taxoon ñu créer euh, euh, programme de domaine agricole communautaire donc dañuy am obligation ñëw teew fii représenter fii madame le ministre de la jeunesse donc pour jaajëfal leen ci étude boobu mun a discuter ak ñoom ci étude boobu mun a aussi à partir de là bâtir benn partenariat boo xam ne dinañ ko am ak ñoom parce que ñu ngi nekk def lu am solo donc la woon donc pour ñun pour ñu ñëw fii waxtaan ak ñoom gis li ñu def mais aussi wan leen suñu disponibilité à en tout cas travailler avec eux pour l'intérêt donc des jeunes qui sont nos principales euh, nos principaux partenaires donc dans le cadre du déploiement de notre projet le programme de domaine agricole communautaire. ah Pape national Prodac.